Jungle. mbokk yi salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu yéen mbokki jullit yi mbokki taalib yi ngi leen nuyu di leen siyaara te leen ndokkeel ci bés bu màgg bi nga xam ne moom lañu amal fii ci Touba Kër Ñang di ko ànd ak mboolem julliti yàlla yi ak taalibe yi di ko def ci ndigalu sëriñ Mahamadul Murtada mi nga xam ne moo fi toogal maam Modou Xaali moom maam Xaadi ma jaxate kala radiallahu taala anhuma ak mbokkam mu baax ma sëriñ Mbay Jaxate ah, yàlla mi yàlla mi mu mi dogal ci dogalam ak mbaaxam atte woon na bis bii nga xam ne moom lañ toog di ko def tey jii mu nekkoon ci ndigalu sëriñ Misbaahu Jaxate di sunu waajur mu di ko defal waajuroom wa ginnaaw ba mu fi bàyyi ko di ko ñaanale fi barsaq ya ba yàlla dogal lool di law ba suñ jonni tey jii mu àndoon ko rakkam ya sëriñ Abo ak Baye Baye Mahamadul Basir Jaxate ba ñoom ñëpp ñu wujj suñu borom subhanahu wa taala loolu di wéy di law ba ci loxoy sunu waajur wi di sëñ Mouhamadul Mourtada loolu moo dellu siwaat ñi di ko defal fii ci Touba Kër Ñang ko gilti yàlla yi ànd ko taalib yi yëpp ak mbokk yi nga xam ni ñëpp euh, mooy mbokk axrab yi mooy mbokk dara yeeg ñëpp rek incha allah kon ñu fas jokk ay kàddu rek ci euh, ku baax ki jàkkaarloo ñun ngir euh, am ñoom ci laaj incha allah. jërëjëf mbokk mi li nga laaj lu am solo la waaw daara bi de dalilul mbir mi mooy ñaan la goo xam ne suñu waajuroo Mouhamadul Misbaa moo ko doon ñaanal waajuram ca njëlbeen nga moo muy cosaan lu sew a sew cosaan lu sew la mooy da doon def saa su àpp ba ñëwee rek mu def kaamil def ay laax maanaam ñaanal waajuram ngir suñ boroom yokk ay darajaam yokk ay maqaamaam loolee moo waral maanaam mu defoon ko ci bis bi at mu jot moo koy def noone waaye lu baax. mooy li nga xam saa su ñëwee bu at ba bis ba dat ba dilsiwaatee day gën a yokk di gën a fawxa muy dem ba su ba ëpp ay loxoom moom ci boppam moom mi ko doon def mooy mooy sunu waajur baay dem ba ëpp loxoom mu ànd ko rakkam yëpp ñu koy def di ko def ba mujj ñi nga xam ñoo ak njabootam boobu ay tuut tànk lañu waaye dem na ba ba yàlla mi dara tëwul dem ñu dem ba màgg bin màggee nag ànd ak moom liggéey boobee bin ànd ak moom liggéey boobee ñuy dem ay ati at ñu dem ba am ci ndigalam moom Baye Miss Baaxu Jaxate mis ndigal lu toll ne maanaam mu jël mbir mi teg ko ci suñu loxo moom ay ñi nga xam ñooy sët yi ñun sët yi ñoo def ñoo àndandoo nag tag ko wenn say maanaam def benn daaira boo xam danoo àgg jébbal ko ko sàkkal ko tur maanaam mu mu mu jox ñu ndigal ñu ànd ak moom ci liggéey bi saa su àpp ba dikkee ah suñu dooleeg suñu ñaq suñu xam-xam lépp ñu def ko ca ngir bis ba mën a taxaw ba agsi fii mu agsi tey kon loolee mu ndigal loolu lañ ci am daaira bi nag jamono ji sët yi cëpp doole sët yi ñoo cepp doole ndax doom yaa ngi fi sax nag waaye ginaar bi fi doom yi nekkee sët yi ñoo cëpp doole ndax daanaka lu ci ëpp lu ñuy taxawal dañ ko def daayira boo xam ne maanaam at baat lay doon kenn ku ne am na sas wu na rëddal boo xam ne sasoo bu ñëwee da koy bay bay googee nag dafay law ba ci sët bu bàyyeekoo moo xam sët bu bàyyeekoo ci góor la moo xam sët bu bàyyeekoo ci jigéen la waaye ñoom ñëpp ci lañ doon du caage ne ko sant jaxaat rek lay doon waaye foo sëtoo ak noo ci sëtoo rek yaa ngi ci biir yaa ngi ci biir maanaam maanaam daayira bi kon daayira boobu noonu lay doxee at mu jot ñu koy doxal at mu jot ñu koy doxal saa su ba app la nga xam ne doon ko doxal di koy doxal ba ba ba ñëw maanaam loola la dajale fas ko taxawal ci bis bi lu ñu ci am incha allah def ko ak lu julli ci yàlla def ak ñu bëgg lu baax lépp ñu àndandoo lool di ko màggal ba ba suñu jon tey ji daayira bi nag ni muy doxee mooy maanaam jamono yi buñ ko nasee ba buñ demee ba nga xam def nañ ko tey ji bu subaa buñ demee Xuru Mbàkke buñ ñëw buñ ñibbaas ci kër dañuy toog def benn yaatu lay doon danañ fa tënk li ñu war a li ñu war a jëmee demee incha allah ko fa tënkee dañuy demaat ba dugg ca ba ñetteelu weer ba ni nga xam ne mooy tee bis mooy tee bis bi agsi ñu soo commencé nag di def maanaam maanaam maanaam ay réunion maanaam maam diggante réunion yi daal ak bis bi maanaam du paax ñetti weer wala ñeenti weer yoo xam ne chaque dinañ ci benn bis maanaam chaque samedi dinañ daje kër kenn ñu toog fa waxtaan ñi andi seen i xéwal andi seen i xéwal ba ba ba timisee ñu ñu ñu ñaanlante di ko def ba keroog bis di ñëw bu bis bi dikkaatee tamit ñu kon na waa nen waaye du caageen ne saa bis bi dañuy def par chaque chaque waaye di ñetti weer wi bëgg a ñëwee moom maam bis bu ne chaque samedi ci weer wi maam samedi bu jot incha allah dina kër kenn maam waxtaan fa am na kër baa Misbah lañ koy njëkkee fa foofu lañ koy tëjee tamit incha allah daal mooy li nga xam ne maam moom noonu noonu noonu lay doxee incha allah loolu moom euh, dañuy wax ne wax dëgg yàlla mbir la moo xam mbir mu ubbi ko la ndax euh, euh, ku bëgg lu baax ku ne foo yaakaar lu baax baa nga gis ko war nga caa dem baa nga bëgg loolee du caagante ci sët la kon loolu kon loolu day day day mel dañ ko bëgg a xatal te xatul mbir mu yaatu la dañoo wax ne fu sët sëtoo bu nu waxoon ne sët dañ naan kon ku sant jaxate déedéet waaye nag képp koo xam ne jultub yàlla nga tamit te bëgg lu baax tamit sa xemmante ndax ca loolee na la wér na loolee ubbi na la bunt boo xam ne mën ngaa ñëw bokk ca loolee ndax loolu de mooy ñu suñu bopp ci sëriñ bi te delloo suñu euh, gën a fetlu suñu taalibe te tego ci li nax siraatal mustaqim ndax loolee rek mooy li nga xamante ni moom ndax borom bis bii nga xam ne moom la ñuy defal li tey lu bu fekkonte ne mbirum adduna la ñuy làmb kenn du ko ndax daj ndax loolu yàlla ak yonent bi sëriñ bi ak ak ak yaakaaram ji ak ak magam ju baax ñi mooy sëriñ Bay Jaxate dara ñurukoon lu loolu nga xam ne adduna moom da koo tegoon ci ginnaaw loxoom bii na ko waajur mi defe ak na ko magam yu baaxee defoon na leen sëriñ Tuubaa yare woon ci loore la nekkoon kon dëgg bu fekkoon ne adduna la ñuy wut baa lenn jeex nañ ko ci adduna kon adduna kenn kenn du leen fi ëppale ba ba ba ba ba ku tudd lu mbirum adduna danañ ci danañ ci boole waaye nëbb seen bopp ak suul seen bopp dañu nag defaru yàlla ak suñu borom subhanahu wa taala ak liggéeyal nit ku baax maam sa mbir loo ko suul suul du tax mu suul loole nag ma waral lii di di feeñ as lëf ci mbiram waaye na la wér na maanaam du lool loo xam ne moo taxoon a jóg wala loo na ne ko koy defal mu ngir ngir muy ne ci àdduna di maanaam ñu ñëpp di ci teg bët kon loolee war nañ cee roy lu baree bare noo roy suñu bopp ci taalibe waaye teg ci yoon soronte te jaamu yàlla te bañ a boole dara ak yàlla subhanahu wa taala te gëm sëriñ bi bañ koo bañ ko bañ koo caaxaane te xam ne sëriñ bi li am ay caaxaan ma yi ko kon ñun ñi ay taalibe war noo tegu ci yoon woo xam ne nii maanaam Serigne Touba ñu danoo amul wenn lay suñu diggante moom ndax dafa bind bàyyi fi wax wax ñuy dégg mu jëf ñuy ñu ñu gis kon loolee amuñu lay suñu diggante ak moom la ñu war nag mooy tege fa mag ñi tege woon mooy toppi ndigal bàyyi ay tere te yii nga xam ne mooy ay poñaxati àdduna nga xam ne leeral na ay ay ay mu baasar la yoo xam ne amul benn njariñ ñu ñu teg ko ne te xam ne dëgg rek mooy mooy mooy lu wér. tawit euh, na jataay yu mel nii tamit nga xam ne lu bare ba da ci soq ko yu bare ba da ci day mujj ne yàlla mi taxoon nga ko jëf sax day mel ne yàlla yor ci ay ab sirom téye ko bàyyi la ak mbirum àdduna mi kon ñu bàyyi xel ne lu ñu a def nañ ci jiital yàlla suñu borom subhanahu wa taala rawatina maanaam ñu def lépp li am solo waaye leneen lu mu maa doon rek ay ay ay lay doon te loolu daanaka taxul a mag ñi jóg kon war a noo tege fi ñu war a tege te xam ne jaamu yàlla moo ñu fi indi waaye topp ndigal moytu ay tere baa ñu bakko sax moo ñu fi indi kon loolu na xam moo nu war képp ku ab julit moo la war rawatina nga ab tal du too sëriñ bi sëriñ moom képp kuy tuddoo ay mbiram ku la na jàkk war naa xam ne lii ci sëriñ bi la bàyyi ko waaye loo xam lu ñuy xeb la ba loo xam dañ ciy teg baaraam naan accam loo ab jaam na koo jom sàkk sàkk ab taalibe kon kon ñu bàyyi xel ci loolu bu baax baax rawat na ñun ñii nga xam ñoo ay tuut tànk nga xam ne ñun la mañ yaakaar ëllëg te fa mag ñi nekkoon lan fa lan doon def itam ñun lañ ci yaakaar te ñoo ko war ba fa ñoom fan ko bëggee kon ñu war noo am fu ñu tege war noo am melokaanu mel war noo tego ci fi war a tege te jàng suñu diina jàng suñu sariya te téere bi yàlla bi ñu fonk ko baax baax te te nampatal tu suñu njaboot nag ndax loolu rek mooy mooy li njëkk te mooy li mucc incha allah taala incha allah taala jërëjëf asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu